benn lundi 23 mars 2015 am na ko tëjoon koo xeexoon pour ñu ko six ans de prison alamaan ko 138 milliards ci loo xam ne defu ko te fi ngeen ko jaaree bi foofu nga def sa doole bi yëpp muy Karim Meïssa Wade ci nga xam ne bàyyam tey lépp lu mat Sall am moom la ko amee muy jëf bu ñaaw jëf bu ñaaw jëf tey ñu ñëwaat histoire du fàtte nga nekkoon ko substitut du procureur espécial de la CREI beneen bi mooy nga nekk agent judiciaire de l' état ci beneen affaire boo xam ne doomu Sénégal gor Khalifa Sall nga xeex def lépp loo mën ba ñu tëj ko lu mat cinq ans de prison alamaan ko un milliard huit cent millions ci loo xam ne teguwul fenn parce que yéen ñi ko doon def yéen a doon jariñoo xaalis boobu yéen na ci yërëmoo di leen ci dimbali moo wax nag ci biir loolu noonu ci sa nomination boobu dama jàpp ni ArcelorMittal am na ku fa nekk juutu la fa bañoon na signé deux mille milliards yoo xam ne nga nangu ko nit ñi ñu ne yow journal yi ma jot a lire sniper nga wala liquideur d'opposant nga mooy sa mission loolu lañ ci wax beneen bi mooy bu ñaar yooyu weesoo dama bëgg a wax Sénégal yow mi nga xam ne yaa nekkoon ci ñaar yooyu tey yow yaa toogaat bëgg setalaat loolu moo tax ma ni Macky Sall day rey ndaanaan ñëpp nangu nañ sam njàng ñëpp nangu nañ coono yi nga daj pour egg si nga egg donc say mbokk def na li waroon def pour nga nekk fi nga nekk mais tey bu ñu yàlla yàlla yaakaar naa ñu ngi koy ñaan Sénégal mu dimbali ñu ci xam ñu ay dirigeants yoo xam ne du ñu wàcc ba pare du ko lekkat munoo wàcc ci Khalifa Sall wàcc ci cré yi jëlaat lépp lekkat ko uniquement parce que da nga bëgg benn poste wala da nga bëgg loo xamee ni nii ëllëg mu extrapoté wala alal loolu dafa ñaaw ngor jeex na sama code d'honneur suñu code d'honneur moo ñu may tey kii wàllu président Ousmane Sonko duñ ci wax parce que pare nga ci pare nga ci kenn moo la defee donc man damay jàpp ni ñu waxoon ne da nga ñëw pour liquider ay ay opposants ñaari jëf yi boo ko tegee ci lépp loo xamee nii cible actuelle bi mooy arrêter la mer avec ses bras bu ñu la dénk loo xam ne mënoo ko mënoo arrêter la mer avec ses bras le président Sonko c'est une vague c'est une tsunami mënoo ko arrêter arrêter je pense que am na bloqué parce que jàpp naa ni ñun ñii nga xam ne ñoo nekk Pastef man ci ñuy wax Pastef man dama judd nekk Pastef dama juddoo Pastef dama nekk Baye Fall judd nekk Baye ñu tuddee ma doomu maam Cheikh Ibrahima Fall ma am la viatique Baye Fall nga xam ni ci Pastef lañu ko sant donc jàpp naa ni képp koo xamee ne nii am nga beneen gis bu bokkul ak nit koo xamee ne nii li nga nekk soo ko gëmee parce que borom Tuubaa loolu wax naan ak mag ñu njëkk ñi bu fekkee asamaan si moom ma tiim suuf si tiim ma ma am Pastef lépp lu yonent bu defoon naa ko fekk loolu moom mooy Pastef Pastef nekkul ay caaxaan Pastef suñu ADN la Pastef suñu yaam la suñu grève la Pastef mooy li nga xam ne mooy tax képp ku ko amul doo tekki dara ci kaw àdduna te su fekkee ne da ngaa xeex Pastef ba yaakaar ne tey ëllëg dina ci am ndam ëllëg doo ci am ndam sans prendre à nos personnes nga xam ne yàlla moo ñu bind daf ñu ay Baay Faal ñuy Pastef fexe ci suñu def ba suñu jàng ñuy Pastef suñuy nooy ñuy Pastef suñuy dund incha allah Pastef survivra te mu lay neex mu lay naqal moo ji sa dund moo jël say jubbu ñi la jur te moo fiy def ba abadan incha allah. keneen ki may wax mooy li nga xam ne moo jëmloo ci sa résultat sa résultat mooy sa bilan nekkul lu arrestation illégale de maire arrestation illégale de député tuerie de plus de cinquante nit yoo xam ne da nga waroon aar arrestation arbitraire de mille des millions de blessés complot d'État euh, espionnage banneel yoo xam ne jël ay yéen yi ñuy daw ci biir dëkk bi mënoo leen a arrêté tey laa sa pays moo taxaw tey yéenewuma yéenewuma sa jëf yi ay kilifay Sénégal ñooy yóbbu sa pays parce que li am sa pays ak liñ ko dënd lu ñaaw man lu wax mooy article cinquante sept article cinquante war na la doy parce que man nag gaal bi maam ndax aw ma liiti maanaam kenn tënkuma ci benn jarog ma ci woon dama ciy maam waaye aw ma riitu ma la riitu ni ko mën nag nañ toog ci la riitu waaye man dëgg laa lay wax askan benn fan waxuma dara contre sa personne mais damay wax parce que damaa jàpp ni tu dois préserver en tout cas la république et c'est ton devoir et tu